comme ni leen ko waxee ni ngeen ko gisee kii mooy mercenaire moo jël deuxième ci deuxième avance kan mooy mercenaire ñu bàyyi Ndiassé gannaaw buñ ko félicité ba pare mu wax kan mooy mercenaire. waaw sul maa ngi lay ziar di ziar waa Ladoum TV yëpp waaw mercenaire doomu Latir la yaayam nekk doomu roi roi roi Saloum euh, maa ngi ko bi muy am ay 2 mois ma yor ko ba mu ma présenté ko. suñu borom dogal ñu jël deuxième trop deuxième deuxième kii bi deuxième place bi waaw. waaw Ndiassé bi ngay jógee Kébémer di ñëw fii njortoon nga ni di nga dugg concours njortoon nga ni di nga fi jëlee trophée yóbbu ko waat Kébémer. non Abdou man bi may ñëw compétition moom andi ci foire bi su ma doon ñëw di di exposé box du ma ñëw te may ñëw évaluer naa xar xam naa li ñu am xam naa li ñu capable. taman wóoroon na ma ak lu mënti am dama dikkee damay boo xoolee avant foire bi maa ngi ciy risque ku mel ne El Hadj Ndiaye Luftu groupe Ndiambour élevage man ko inscription fekkoon ne day am ci kër gi man bala maa dem filaa laay ndax conversion moom yónni te euh, pour dire vrai foire Ndiambour laa jox jaaj motu 200000 ni ko man damay dikk compétition si mal espoir fo filaa kon donc nekk lu nga xam ne damaa nekk ba mu egg si mën koo préparé. Dia fan ga teg waaw fi mu ko def xool xar mi xam ay capacité am di ko évaluer xam ay mensuration am di ko comparer par rapport ak yeneen foire yi fi jaar donc su ma xamee ay mensuration am xam ma yan mensuration xar yi gañ daan am dama jàpp wóor que ma mën naa gañe foofu laa ko tegoon. Ndiassé lan ngay wax waa Fila bi ak téléspectateur Ladoum TV. waaw xanaa di leen jaajëfal ñoom ñëpp rek wax daal di wax ne am ñu seen fay ndax yéen yéen i bàyyi seen yitte ñëw di ñu taxaw di dundal élevage bi vraiment ñu ngi leen a baax taxawaay sama xarit sama doom nay Isaaxa waaw mu ñëw bokkoon ñun suñu suñu soobaru suñu victoire ak sama ko ñu di daa mun ma koy remercier moo jàpp ci commission yi baax a baax a baax ak mon ami Abdou euh, euh, Modou Kébé ñu ñaar ñoo ñëw représenté waa waa Njàmbur fii waaw ñoom ñëpp daal maa ngi leen di siyaar leen bëggee di gërëm nag bu baax a baax sàmm suñu wàdd ndax mën a ñëw dakaar dana am jafe-jafe pour mu am nekkuwaay tey mu jël ma héberger ma këram jox ma caabi kër gi heure mu neexee ubbi dugg heure mu neexee génn wax dëgg fa yàlla moom aw ma fayam quoi mention spéciale ak Samb Sunu Wade waaw waaw. bi lan ngay wax ci victoire bi. waaw mais champion yi avant tout maa ngi leen di ziar di leen sant di kontaan am contentement seen teewaay di wax ne Ndiaye sa borom baax la vraiment ndam lii nii da koo mérité. waaw lii du sens mérite la kon dañ koy ñaanal yàlla ndam lii nekk ndam lu oyof ci moom ba maal bi ñu déggaat ko ci ay yeneen trophée yu bokkut bii waaw loolu koy ñaanal xar bi barkeel ba tas si élevage bi nekk njëriñu Sénégal waaw vraiment ni ku baax la dañuy ñaan yàlla rek yàlla su gën a barkeel xar bi xar la boo xam te ne vraiment am na macération yu terrible waaw élevage nag noonu la waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla su barkeel lépp ci barke Seydina Mohamed. amiin yaa rabbal aalamiin téléspectateur Ladoum a waaw te du ñu bàyyi nag faaw ñu dem ci gis Samba suna nga xam ne moom tamit tubaar fakkal a ah, kookoy Samba ñu bàyyi ko rek mu wax ñu naka la gisee victoire bi. waaw victoire bi dañ leen koy delluwaat yéen waa Laadum TV ndax euh, man nee naa leen xar mi ma njëkk a seetaan ci ci xar ci Laadum Laadum TV laa ko seetaanee kon su ma leen gisee damay kontaan di am mbégte ngeen def la ngeen daan def kon dañuy ñël siwaat lii moom. waxoon naa ko Louga nga taalal ma micro man leen waa Sénégal nan waajal waa Louga nan ñu bàyyi xel danoo ñëw foire xar bi njaase mii taxaw ay xaram classé ay añel mu jël deuxième am troisième añel xar bii nekk xale am 14 mois mu ni foire bu mën a xewaat dana fa inscrire xar mi ñu inscrire ko mu ñëw jël deuxième kon li ma doon wax waa Louga nan leen bàyyi xel xar bi confirmé na ko te ba tey damay wax naan waa Louga nan ñu bàyyi xel ndax ñaari espoir femelle am na fa di doomu Bayla Bayla doomu Picasso kii jël am 104 kii am 103 104 103 mu tegale ko kon su ma nee Louga boobu ba léegi ñu am ay espoir nan ñu xaar waa Louga ak lu élevage a ko déggandoo bàyyi xel bu baax a baax waa Louga ñi ngi kaw di Ndiassa mën nañ ko tuddee kuy doog a tàmbali ndax ñi mujjee dugg ci élevage Louga la bokk ak man mii di wax ak yow Samba waaye liggéey na ci xeetu xar yoo xam ne luga nan ko xaar xam na fu mu koy commencé xam na fu koy terminé dugal birthday di doomu garaaraan ba naan njaay ban tuddee ko jaase birthday mu teg fo loolu yëpp dem ca Saalum ba te léegi gis nga ni Saalum mooy bomb mu ñëw classé deuxième nan ko xaar <laughs> mooy nan ko xaar rek almetu kafaal la jërë ngeen jëf téléspectateur Ladoum TV